ñun ñëpp ko gisandoo gis nañ concours bi nu mu jàllee fa tabarakallahu xale yi laaj nañ leen tontu nañu am nañ ay membre jury yu am solo fa tabarakallahu mbooloo mi ñëw nañ fekkee si concours bi concours bi nag comme ni mu ko waxee mooy ahlu quran les partisans di Coran de Mbour ñoom ñoo koy taxawal at mu jot ngir lay taayale ko 31 décembre lay taayale ko 31 décembre parce que alquran moom la ñuy journée boobu loolu la ñuy yëndu di jàng kon 31 décembre lan mooy xew mooy ñaari yëf mooy résultat concours bi ñu def nii tey résultat yi dañ koy génne keroog le 31 décembre le 31 décembre Cheikh Omar Foutiou Cissé yal na yàlla sàmm ko moo ñuy defar conférence bu rëy bi nga xam ne conférence annuelle la àdduna wërngal këpp di ko xaar le 31 décembre ci la ñuy invité mboolem jàngkatu alquran ci réew mi mboolem borom xam-xam mboolem taalibe boo xam ne day yëngu ci alquran ak bitim réew ñu tase fii 31 décembre fii ci ONCAD. fii ci bayal bi incha allahu taala fas yéene yenn jàng al alquran yenn bégalante ci alquran yenn déglu ki nga xam ne mooy Cheikh Omar Fouti Cisse ànd seeg ñi nga xam ne mooy les partisans du Coran ànd seeg suñu ministre ànd seeg mbooloo mi yëpp kon 31 décembre lii mooy xew. yaa oustaz waa ëllëg Quran. Mhm. c'est la lu mel nii wala yàgg nañ ko. déedéet concours alquran bi mun nañ jàpp ñu ngi ci ñeenteelu édition ci concours bi donte sax li nga xam ne moom mooy conférence bi moo jiitu concours bi. conférence bi lu yàgg la ñu ngi ci suñu juróom-ñeenteelu édition waaye concours bi nga xam ne mooy concours alquran bi ñu ngi ci ñeenteelu at boo xamante ne ñu ngi koy organiser parce que concours euh, conférence bi da doon am rek ñu daal di ko amal waxtaan dem ñibbi ñu gis ne mbuur mu ngi bëggoon a tumuranke ci li nga xam ne mooy concours alquran ñu gis ne mbuur ñu ko tuddoon ay caaxaan lañ ciy wax wala yu mel noonu ñu ne nañ taxawal concours alquran ngir fexe ndongo yi nekk ci mbuur yëpp gis ci seen bopp ak département de mbuur kon nii la mbir mi tëddee. concours bi yàgg na goo leen ko génnee ko ci biir biti réew mi. alhamdulilah concours bi ñu ngi am yaakaar bu wér ahlu quran bi la maison mooy les partisans du Coran de Mbour euh, fépp foo xam ne logo bi gis nga ko fi boo gisee suñu jàmbaar yi jógee bitim réew mooy ñi nga xam ne dañuy dem def concours international bu ñu ñëw aéroport les partisans de Coran nga gis ñoo leen di gàttandu kon mun nañ ne association bi internationale la parce que boo xoolee suñu vidéo yi année yi passé chaque année dinañ am ay gan yu jógee ay Égypte dinañ am ay gan yu jógee bitim réew ngir fekkee ci concours bi mun nañ cee tànn Imam Ndiaye mi nga xam ne mu ngi ba mun nañ cee tànn suñu gan yi daaw ñu newoon ba Égypte kon mbir mi international la léegi kon képp koo xam ne bëgg nga alquran fonk nga ko ñu ngi la ci woo yaa xam ci réew mi wala ci bitim réew kon noonu lay dem demee incha allah ñu jox leen dig daje ba le 31 décembre ku ko tardé bu ma woo bu ma bippé te bu ma envoyé message salaamaaleykum wa rahmatullah Sene Info